aleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon loolu moom soo ko déggee rek jàppal na sunu borom bi ñëwaat ñëwati ak ay dogalam maanaam jël kenn ci ñun ki mu jël nag ku mag la woon ci réew mi waaye tamit rawatina li nga xam ne nii moom mooy làmb ji mel ni ki nag démb la loolu am ka mu jël nag du kenn ko dul ka nga xam ne moom moo di Balla gay 1 wala Balla gay Ndour Balla Gaye 1 daal démb moom la sunu borom bi jël ci juróom-ñaar fukki atam ak benn maanaam 71 ans yëglikaay bi di sunu làmb Leewtoo Lutte TV foo dem ci yëglekaay yi La Tribune nag fu nekk daal tey ku ci ne xëy nga tey dinu wax lu mel ni ki noonu dinu xamal ne kii di Balla Gaye numéro un daal wuyu ji na boromam dem mel ni ki nag ñépp ñi nga xam ne nii ñu ngi yëmut yëngutu ci làmb moo xam mbër nga se amateur wala nga dem supporter maanaam ñépp ñëw nañu démb taxawu ko jébbal ko boromam ci këram gu mujj fa nga xam ne moom moo doon ca fa nga xam ne moo di Cambérène ka nga xam ne nii nag moom moo di Matar Ba di ministre des sports ba daal nee na mbir daal mbir mu triste la mbir la mu méttee méttee métti bira seen làmb ji bees tamit ñëw na daal di wax ne daal lii daal ah maanaam les ku ñuy jooy la koo xam ni daal la woon a la woon boo xam ne daal maanaam wane woon na boppam bu baax a baax mel ni ki nag ka nga xam ne moom moo di Balla Gaye numéro 2 moom nag nëbbut ay waxam de maanaam jooy na démb ba rongoñ ya génn ba bët ya taa lam ca teg nag lenn la lenn man lu ma doon wala lu ma mën tey rek wala lu ma mën di def rek nañu jàpp ne ginnaaw yàlla ak yonente ba ak samay wayjur du kenn ko dul sama papa ji nga xam ne mooy sama tur turandoo di Balla Gaye Ndour mi tëdd tey nee na lépp lépp moo ma ko defal ndax moo ma téye nag ba dara dul dara ba def ma dara ci wàllum làmb tey moo tax daal moom jàpp na ne bu ñëpp ñàkkee itam moom Balla Gaye numéro 2 moom jàpp na ne moom mii moo gën a ñàkk yëglikaay bi di sunu làmb ak fa nga xam ne nii moo di ci site internet ya fa la ñu gis nga xam ne moom moo di Balla Gaye numéro de mel ni ki daal la ko daal metti na lool lool lool rawatina la nga xam ne nag moo dal ña nga xam ne ñoom ñoo di waa géejawaay booy ñang numéro 2 bàyyi ma njoon baabooy guy gi ak ñeneen ak ni daal maanaam démb boo bëggee dégg dëgg daal kenn desut waa làmb yëpp yëpp ñu nga fa daje woon ka nga xam ne ni nag moo di Sa Thiès di rek ki ma takkee ngeen bu bëree rek grâce à Père Ba Baye Balla la maanaam daal moom moo ma dugal xam ne moom mooy baabooy tamit nee na ñu ngay ñaan yàlla yërëm ko te xare ko aljana guy gi tamit jàpp ñoom ñoo ñàkk la nga nii moom moo di monument la nga xam ne nii moom la Père Birahim Ndiaye wax tamit nee na koo xam ne ne la man ak moom amoon nañ ay relation yoo xam ne yu baax a baax la dégool tamit nee mu ngay présenté am njaalam képp koo xam ne daal yaa ngi bokk ci làmb di ci yëngutu Zil itam lu mel noonu la wax yemu ca moom Zil Balde mi nga xam ne moo di Balla Gaye Ndour fu mu dajewoon ak nun daal daan nañu digal ay conseils yu baax di teg ci li nga xam ne ni moom moo di aw yoon Alioune Seye numéro 2 jàpp na ne seen baay moo génn àddina wuy ji boromam loolu daal la gis jàpp na ne tamit koo xam ne la woon ci ñoom exemple la woon ci ñoom royukaay la woon ci ñoom ba tax na tey lu baree bare lu nekk ci ñoom bokk na ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko def mobile bu Grand Yoff daal nit ku màgg a màgg lanu ñàkk góorandooy ma jiite seen a tamit wax na ne na ki nga xam ne ni daal moo di père Balla Gaye référence la woon ci li nga xam ne ni moo di réew mi rawatina lamb Balla Gaye numéro un tamit jàpp na ne kii di Balla Gaye un moom maanaam ab royukaay daal la woon maanaam modèle bu mag a mag la woon ca la nga xam ne moom moo di réew mi rawatina làmb booy ñang bu déggal moom la muy rafetlu ne na ginnaaw bu mu ko ñaanalee ba pare yàlla yërëm ko nen li muy rafetlu mooy waa làmb daje bi ñuy daje suyu mel nii amee bokk nday bokk baay maanaam solidarité moom jàpp na ne daal lii loo xam ne ne daal lu ko marqué marqué la ci mbir yi mel ni kon kon daal démb Cambérène moom feesoon na del kenn kenn desu kon fa maanaam ñëpp ñëw taxawu ji góor ga jébbal ko boromam yëglikaay bi ñëwaat na sax dinu fàttali loo xam ne ni ci ay waxam la woon mu daan ko faral di wax moom sunu làmb xëy tey ñëw dinu wax lool ba tey bu ñu demee fa nga xam ne nii moom moo di ca na démb daal li am solo ba am solo daal wala la nga xam ne nii moom moo di boromam loolu yëglikaay boobu tamit ñëw na moom record dinu ko wax ba tey bu ñu fa jógee waate dañuy dellu sunu làmb ñëw nag ca bëre ba mu mel ni nag li am ba des mooy kii rëg-rëg ak fara li leen war wala li leen di ñu ñu continuer ko maanaam ñoom ñaar ku ci ne am nga combat frappe te ku ci nekk mësoo bëree daanu yëg li ba di record wala boog sunu na ko bu dee Franc la moom ku ne a bëre ka nga xam ne moom moo di guy gi yëg li kaay baa xëy ñëw tey dina wax lu mel ne ki noonu ñeneen ñoo xam ne ni moom yëg li kaay bi ne seen i mbir xanaa boog seen bu bees bi na koo régler muy lu mu jàppe injustice muy ki nga xam ne moom moo di Isabelle Zambu ak Adama Diatta yëg li kaay baa xëy ñëw tey dinu wax noonu ba tey leneen loo xam ne yëg li ba xëy na nu ko wax muy ka nga xam ne nii moom moo di ah, Aliou Ndour ma nga xam ne moom mooy chargé de communication waa Amalda comme ay nit dañoo génnoon fan yii nag di dal ci la mu gis mooy ne na ñoo ñay wax la ñuy wax ñoom la engagé waaye ñoom waa Amalda daal muy tey bay suba muy taw wala muy naaj ñu ngi ci gannaaw Manga 2 di ko le ndax jàpp nañ ne lañ ko dénk ñoom la ko loola mën na ko yóbbu fa nga xam ne nii moom la ñu soxla kanu dénkoon nag mu war a joxe la nga ya tey moom moo di Aline Sarr yëg bi record xëy na wala boo toog record wax nañu ko sunu lam wax nu ko Leewtoo wax nu ko mu mel ni kon joxe ga sax daal dinay am kon ku dem ca Leewtoo TV rek da fa gis passation de service ba mu mel ni ki daal soo bëggee dégg dëgg moom moom mi nga xam ne di Alioune Sarr def na dem ca record di diggante Bira Sène ak Alioune passation de service ba joxanteem lenga ya ne waaye yàgg maar loo ci mën a dégg démb boo ñëwee Cambérène di nga xam ne lu waay di def te du baax bu ëllëgee da nga ko rëccu kon yàgg booy dund mu gudd mu gàtt jéem a la baax moo gën a wóor ndax mbaax daa amul prix Père Balla Gaye Ndour nag démb la nit ña wax ak mbooloo ma fa daje dafa mel ni kon ci mbaax kese la nekkoon donte mu ngi doon pratiquer sport am am fu mu féete waaye te réew kon yéene ñëpp jàmm moo tax démb ñëpp fay nañ ko ko kon liñ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla yërëm roy waaye rawatina Balla Gaye numéro 2 mi nga xam ne nii nag yaakaar nañ na tey ah moom mi ak ay moromam moo leen formé mel ni kon daal yàgg waxe yàlla du dañ de kullu nafsin saa yoxatin mawtin yàlla na nu yàlla jéggal te yërëm ñu defal ñu gudd fan ñu ñu fi des barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen waaw di leen baalu ak di leen baal di ñaan yàlla defal ñu jàmm di wax ne ngi nekkoon ci ay kii tey Hmm? yàgg maar tombeek la 15 novembre ñuy ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ñu saxadatu daaray ni ah, tey nag yëglekaay bu mu mën a doon ci réew mi moo xam presse buy la wala audiovisuel la wala rajo la lu mu ci mën a doon rek wala presse en ligne la defe naa tey sànni wenn la muy génn àddina ak Père Balla Gaye Ndour koo xam ne defe naa la woon mi mais exemple la woon tamit su monde de la lutte parce que li tax mooy moom yàgg ci li ma la mën a wax man nekk naa xale bu ndaw seetaan ay kombaam parce que man yàlla dafa def ma yàgg intéressé wu ci làmb seetaan naa diggante mag ay Manga 2 ay Zallo ay Tafaage ak yeneen combat mu nekkoon koo xam ne nekkoon écurie Waalo daan défendre couleur écurie Waalo bëree ba bàyyi bëree te dara ñaawul ba mu ca jógee mu xëy former école de lutte ba mu koy former yàgg maar newul ma uti mbër yu am tur ànd ak ñoom déedéet dafa xool ay xale yoo xam ne a mënaguñu dara mu téye leen def ci ñoom la mu war a def ci ñoom mel ni kon yàgg maar loolu li ñu ci war a jàngate mooy nit ki lépp looy def lu ne. ah maanaam la ma daan wax rek kaalamaar ci ndigg lay njëkke balaa dem ci bopp mu mel ni kon moom loolu la xamoon ba formé école ba tànn ay xale muy Balla Gaye numéro 2 muy Lees 2 ñoom Baye Ma Ndiaye Lamine Golo Elton bari nañu ñoom Lom Fort bëri nañu Maguette Seck ñoom ñépp maanaam mu mel ni xale yooyu la tànn formé leen nekkat ñi war nañoo mën a doon dara def ci ñoom dara loolu nag maar képp ku ko def ku ne man damaa jàpp ne kuy encadré ay nit di leen teg ci aw yoon ba ñu mën a doon ëllëg dara jàppal ne yow sa xol yaatu na te itam boroom xol bu baax nga kon père Balla Gaye Ndour loolu la def ci lam mais yemu ca ci côté communication même am na lu mu ci def ndax ku ne xam ne ne yoroon na émission lamb di ko doxal ca RTS seen national te rajo boobu mooy ndey rajo yi def na fa ay at yore fa di ko doxal di ko teg ci yoon te monsieur Soufa dégg mu wane ak faram wala fa mu bokk da daan nekk ci digg bi rek def liggéeyam encadré fa koo xam ne suñu frère la di Mamadou Diouf nekk tey i rajo ànd ak Ngagne Diagne ak ñenn ñoo xam ne ni encadré na ci wàllum communication si rajo kon mu mel ni nekkoon tamit consultant yaakaar naa ne ca ci ca kon loolu moo lay wan ne kon moom defe naa daal bi mu bàyyee làmb sax la gën a jox la gën a gëddaal làmb gën a cëral làmb defe naa ku formé mbër mu mel ni Balla gay numéro 2 ci ay at yu néew nga def ko roi des arènes tey mu bokk ci bu ñu doon làmb tey dañuy joxe maanaam ngem bu dooru làmb ñu ne pëjum bi trois ci yéeg trois yooyu nekk ci kaw moom muy premier ba deuxième ba ak troisième ba Balla Gaye da da cay bokk xaw ma nag fu muy taxawee ca ñett ña waaye dana bokk loolu moom lu leer nañ la waaw kon yaakaar naa kooku ah jaanam wàcc na mu génn àddina ci juróom-ñaar fukki ak benn mel ni xëy na ah dund du doy fan yi gàtt na ci niñ ko jàppe ndax bu ñu sañ mu dund fi lu ëpp téeméeraat waaye nag yàllaay dogal ñu ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana di ko jàll ay doomam rawatina Moussa Ndour ma ca Espagne waaye doomam ji nga xam ne mu ci làmb ji défendre couleur géej tamit di xale di Youssou Ndour ñu ngi koy jàll papaam di ko jàll képp koo xam ne ni doomu géejawaay nga mais di ko jàll askanu làmb ndax dem duwaa géejawaay rek a fa teewoon maar askanu ah ñoom Garga 2 ay Moussa Balla Gaye rawaan maanaam kullu kuy mbër wala ngay supporter wala ngay amateur ñëpp gis nañ leen fa démb presse bi tamit ñëwoon nañu mel ni kon daal li ñu mën mooy ñaanal ko yàlla jéggal ko xare ko aljana di wax ne àddinaa ngi noonu liñ ciy doole rek maar mooy nañu fexe suñu diggante di rafet tout le temps parce que mi mbir yëpp ci net li lay mujjee kon maar rafetal gi da ciy am solo loolu moom ko wax tey di ñaanal yàlla rek xare ko aljana jéggal ko mais di ko jàllal tamit Balla Gaye de encore une fois wax na waxi gor wax dëgg yàlla ah defe naa ne ku xam Balla Gaye numéro 2 grâce à père Balla gay la kon defe naa ne turoo jigéen wu ko pourtant Balla Gaye numéro 2 ku ne xam ne ne lees ay papaam te xëy na lees ci li ñu xam ci làmb bu ñu ko jàngatee est-ce que ëpp loon Balla gay numéro 1 talent ci wàllum bëre wala mu ëppoon ko tur ci bëre loolu mooy li am waaye ci formé mbër def ko muy doon dara ñi ci tolloog père Balla Gaye Ndour bëriwul te kon defe naa Balla Gaye 2 bi mu ñëwee ci làmb tànn turu Balla gay numéro 2 tuddee ko boppam defe naa tur wa jigadiwu ko ndax nekk na ci roi des arènes dégg na ci lu ne am na ci teranga bu ne moo tax démb ndeysaan jooy na ma ne ko wax nga dëgg nag am na loo xam ne su arrivé maar wax dëgg yàlla faa maar bu xol feesee faw rongoñ tuur du mën a ñàkk waaye ñu ngi la koy jàll di wax nga muñ di ko jàll mbëri géej waay yëpp ndax bëri na ñoo xam ne moo leen formé di nuyu ñëpp comme ni ñu ko xamee rek di wax tamit yëglikaay bi ñëw na ci Franc ak Reug Reug ci seen ñàkk daanu gi ñu nekk te jëm ci ay combat loolu la jéem a défendre waaw loolu nag la ca kanam la wax du raw ay bët parce que li tax mooy bu dee Reug Reug la mook mook ku ne xam na ne booba ko yombalal kenn ko ko xañ Tyson 2 itam mook Franc noonu la demee ndax Tyson 2 daa nekk mbër mu naqaree bëreel mu naqaree daan a bëre Franc nag ci lancé la ne bu doy waar kon loolu mooy la ne foofu tamit nar naa yëngutu passation de service am na Alioune jox na léegi longue yi ka nga xam ne moom mooy Bira Sène kon Bira lañ doon wax la wax rek yàlla na ko yàlla dimbali ba mu réussir mission bi moo kull ku nga xam ne nii yaa ngi ci équipe boobu war a doxal làmb ji passation ba dèjà am na waa Amalda muy ñoom Aliou Ndour génn nañu ñoom di défendre Manga 2 parce que jàpp nañ ne ca lañ la dénk ci mbirum CNC bi yàlla na nga ko doxal ba mbir jaar ci aw yoon ba tey bu ñu demee record tamit fekk nañ fa passation de service boobu ak yu mel ni kii noonu mel ni kon daal tey yàgg maar loolu moo fi ñëwoon di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yal yàlla def jàmm def ko ci àddina bi mais di waxaat rek lenn hmm, nañuy balonte ak di jéggalante di jéllalante parce que li tax mooy maar mën nañoo bañ a bokk xalaat mais waruñu mën di waxante lu ñaaw yaa ngi dégg te Sénégal des fois da ngay dégg ay waxante yoo xam ne nii est-ce que jar na ko maar yow mi sa boo wootee am ñu la wuyu si boo baasoon faaw nga gis ñu la wuyu ndax am na ñu la sopp asan mais bu baasoon am ñu ko wuyu si ayda noonu man noonu keneen noonu parce que ku ne am nga ay soppe l'essentiel que fexeel ba boo dajee ak say soppe bégal leen rek loolu moo solo ñu bàyyi coow li rafetal soo mi duggee ko marché yàgg ma di nuyu suñu père père góor euh, père père bas kenn du peer bas père Bass la moom mooy peeru Faramareen yi ndax lu rafet rek lay sol borom monta yu baax yi père maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee Sophie Dior jaak mu sëñ Mansour si ah waaw kooku mbokku sëñ Mansour la borom daara ji Sophie Dior maa ngi lay bëggee matu suñu naar bi suñu bambara bi moom ñaar yëpp la boole maa ngi koy bëggee bu baax a baax Aïda Diouf mu sëñ Babacar si borom liberté yi maa ngi koy nuyu di nuyu Modou Mané taalibe borom daaru moom tamit kenn du moom waaye tamit di nuyu sama xarit ba Saliou Khoule di wax ne dafa yaram way xaw a kii Saliou na la yàlla wéral ak jàmm ndax yow waroo manqué ci réew mi mais yàgg maar moom mention spéciale laa koy def mention à très bien du noonu lañ koy waxee ci école bi boobu laa koy defal taalibi Cheikh Béthio Thioune mu Serigne Saliou di ñaanal élèves yépp ouverture classe yi yàlla na réussir barke yonent bi sallallahu alayhi